sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida anta alladi allamta luqmaan alxikam waliyahab bil mustafa xayra shiyam mbokk yi ñu seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew yépp ginnaaw bi ñu santee suñ borom tabaraka wa taala julli ci sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi ñaanal saaxibul fadila alxalifa cheikh muhammadul muntaxa yàlla ko fi yàlla bàyyi noonu lañ koy ñaanalee kilifa diine yi ci réew mi yépp fu ci waay mën a nekk rek yàlla na yàlla guddal sa fan te may la wér te àggali say naal ci barke alxuraanul karim mbokk yi ñu ngi waat ci émission bi nga xam ne moom lañ leen amal weer wu jot jëm ci boole alxuraan yi karim alxuraanul karim yi ànd ceeg boroom xam-xam Serigne Makhtar Kébem Cheikh Salihou Mbacké di gërëm compagnie bi nga xam ne moo leen koy jàppandalal ba ngeen mën ko am muy compagnie Alaaji Serigne Seck C3S di gërëm Cheikh Mouhamadoul Fadal Seck ak Serigne Dame Touré suñu wëllëre suñu xarit di ko ñaanal gudd fan wér di sant itam suñu technicien bi nga xam ne mooy jàllale waxtaan yi ci anam moom gën a rafetee muy sëriñ Moustapha Sarr fàttewuñ Abdou Khoudous Silla ca Daarul Moxti mi nga xam ne mooy euh, féetewoo lépp lu jëm ci wàllu dugal émission yi ci YouTube ba ba ngeen mën ko am di leen ñaan ngeen gën a ngir bépp waxtaan bu ñu fi def ngeen mën ko am sëriñ Maxtaar ñi ngi ci fukkeelu émission ak juróom-benn jëm ci wàllu boole mm-hmm. tey ñi ngi war Euh, gannaaw laataa ñuy tàmbali sax dañ lay bàyyi nga nuyoo sëñ Matar ñu doog a dugg ci émission bi incha allah di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam wa rahmatullah sëriñ Omar Silla maa ngi lay nuyu bu baax te di la siyaare di nuyu bokk yi teewlu fu ñu mën a nekk ci réew mi ak bitim réew tàmbalee nuyoo beeg siyaare bi ci saaxibul fadila acheikh Mouhamadul Muntaqa xafidahu llahu wa raa wa waffaqahu wa tawalla amiin yaa rabbal aalamiin di ki teg yoonu murid bi di ki teg kilifay diine yi fu ñu mën a nekk ci biir Sénégal ak bitim réew mi tàmbalee nuyoo beeg siyaar bi it ci alaaji sëriñ Seck njiital C3S mi nga xam ne fi la ñuy defee liggéey bii ah, di nuyu personnel bi tàmbalee ko ci sëriñ Fallou Seck sëñ Dame ture di leen siyaare bu baax tey nuyu sëriñ Mbacke Sourang suñ mbokkum daara mi nga xam ne moom lañ teqali ko léegi ci émission bi yaru ak yare taxawaay bi rafet ci lool di nuyu sëñ Moustapha Sarr mi nga xam ne mooy saytu liggéey bi di ko jël di ko segg te di ko tasaare di nuyu fépp nekk tey siibar émission bi. Mhm. seen mbokk seen xarit Makhtar ki dem Cheikh Saleh. jërëjëf Cheikh Makhtar ci nuyoo bu am solo boobu ñu ngi nuyu bu baax waa Kajoor di nuyu waa Tivaouane di nuyu waa Saloum di nuyu mbooleem fu daara ju mag nekk ci réew mi rek ñu ngi lay wax asalaamaaleykum xam ne émission bi seen émission la. Mm. ndax boole dafa bokk ci alxuraanu karim alxuraan daa bokk ci boole. Mm. mag ñi aaree ko ko ñagee ko ko. Mm. ba yu baree baree baree bari euh, boole indi na ko te ci biir alxuraan la nekk. muy am solo. Mm-hmm. sëñ Maxtaar suñu laaj bu njëkk mi ngi jëm ci ayunuhum ak ayunahum lu leen lu leen lu leen tàqale ci wàllu boole. jërëjëf euh, sëriñ Omar xam naa joxoon nañ leen aw boole ci ginnaaw. Mm-hmm. muy biina reeg boona ree. Mm-hmm. wassaabiina wan nasaaree ak wan nasaaree wassaabiina ak wassaabuuna. mooy biina reegeeg boona ree jooju ñu leen waxoon. ñu ngi ciy jégalu bu baax dafa dese woon a am ak leeral ci biina rek boo ko waxee. wasaabiina lañ ca jublu buuna buñ ko waxee mooy wasaabuuna wa nasaaree nag réegi dafa am boo xam ne buunaa fa njëkk ak boo xam ne biinaa fa njëkk ñu delluwaat ca aayaat yi danañ ko xam ayunahum ak ayunuhum kon bii dafa léwlu mooy dañ ko mas mask ak lonk beneen bi ñu sawru ko sawru mooy mask ak yàpp mooy diggante léwru ak sawru bu ñu nee sawru rek fatxa la mhm. bu ñu nee léwru nag damm la moo tax mën la lépp lu arab yi wax mhm. mag ñi wax nañ ca wet galu na mel wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan ayunuhum yett la baraan njenge laxsaab ayunahum yaar la njóogoog xamar njóogu nag mooy maa idati mhm, jërëjëf mhm. eh, njóogu ak maa idati fala ayunahum ñëw mhm. sëriñ maxtaar leeral boobu am na solo trop ndax amaana ñu bari jàppoon nañ ni jëmmi ayunahum boole la gu bokkut ak ayunahum waaye ni ko teqantalee am na solo trop. Mhm. muy ñaari baat yooyu muy mhm. ayunuhum ak mhm. ayunahum. sëñ Maxtaar suñu ñaareelu laaj mi ngi jëm ci fahalantum fahalantum. fahalantum njeego. juróom-benn munta hoonaa nga njoogu mooy maa idati. muslimoona yaar la hóod ak lën bi. shaakiroona baamub lën bi bu ñu baamu nag daf caa ñëwaat ca mujj ga. ndax da am ñaar ba noppi baamuwaat ca. mux noona yaar la. birima ak xafraan mhm. birima mooy baraatun mhm. xafraan mooy suratul xaafara mhm. yooyu foofu ngay fekk fahalantu lan bi mooy lan bi lan bi mooy lan bi yaay jërëjëf sëñ maxtaar ci leeral yu am solo yooyu jërëjëf sëñ maxtaar beneen laaj bi mi ngi jëm ci warimaa xukum warimaa xukum wan boole ñëw dañ ne warimaa xukum njoogu wari xukum lan faal xukum tongu yaar xukum tongu ak xaalonk la waree xukum ak xaalonk la mooy xukum tongu de bañ nga def ko wari maa xukumuk xëyin mbaa nga di ko def wari maa xukumuk alkubeer alkubeer ñu ne wari maa xukum njóogu mooy maa idati waree xukum lan faal xukum tongu yaar jërëjëf ci leeral yu am solo yooyu jëm ci wari maa xukum rij jëm jorngel rij ji jëm ci jorngel waaw rij ji jëm ca jorngel sàpp fukk rijji jëm ci jorngeel sàpp jorngeel doo ñu ko leeral jorngeel mooy siin su waw mboccoor mooy siin su tooy laañ mooy del ju tooy raaséyin mooy ngeen mm-hmm. noonu lay demee sila saat mooy riidu mm-hmm. def naa jaaroon nañ fee gaay njëgum sila njeegoo jaaroon nañ ok mm-hmm. mu ne rijji nag jëm ci jorngeel sàpp la rijji su naayo la ñeent mi fa wa i mi fa wa i mooy tënk bi min amalee nga njoogu fa innahoo nga lan am waxade baa nga lan raaf innahum ca baraan rij jëm ci jorngel jërëjëf loolu mooy jëm ci rij ji jëm ca jorngel ar rij sa jam moom ban boole ñëw moo eggugul woon mu ne ar rij sa jam taara muy ñeent kadalika yajcalu llahu rijsa lan am wa yajcalu llahu rijsa yunus fajtanibu rijsa xaj yudhiba ankum rijsa laxsaab rijsan ila rijsihim yépp nga baraan rijji jëm ci jorngel muy rijji jooju siin sa ca tege day wow mhm. baraan mooy baraa mooy baraa atul jërëjëf sëñ Maxtaar ci baraam nag mooy ibrahima baraan mooy bara baraam mhm. mooy ibrahima nga xam ne leen tàqale mooy diggante nuun ak miim bee daa jeexee miim bi jeexee nuun mhm. jërëjëf sëñ Maxtaar beneen laaj bi nga xam ne moo topp ci laaj boobu mooy yaani mbóore yaani mbóore njeego law la yaani njoogu hal yastawi yaani yaar la Hóod ak Sumar fata yaanee nga mbargaan mutalaq yaanee nga majid macha allah mutalaq nga majid waaw ci boole wi jëm ci wàll yépp nag mbóore la mbóore mooy desu ci dij laaya mooy desu ci dij waaw bu dee boo ci boo ca boo laaya rek mbóore mhm. boo ko laayaa nag muy dij laaya dij laaya dij laaya mooy bu am laaya mhm. mbóore mooy bu amul laaya sëriñ Maxtaar beneen laaj mi ngi jëm ci jaba jam-jam jaba jam-jam moom ban booleet ñëw jaba jam-jam njeego jabalu ni yatt la min hu naa nga laan yansimu nii nga xóot lara ayta hoo nga xasri wala wax jaba kum laan wala wax jaba ka yaar la njuugoog laxsaab yépp jaba la macha allah te kenn du ci sàdda benn jam-jam mooy bu wala wax jabalul rek boo ko defee daan la hmm. muy jaba jam-jam muy hmm. jaba gi da ngay da ngay woyofal jàll allah jërëjëf sëñ Maxtaar beneen laaj bi mi ngi jëm ci mbankaan songi taara mbankaan songi taara njeego mhm. day banku mhm. ca mujj ga mhm. te ba ca tege liif fag laam lay tàmbalee day banku ca mujj ga waaw te baat ba ca tege liif ak laam lay tàmbalee mooy day taara mm. mu ne xam ne mbankaan songi taara njeego kasratul xabiisi njóogu kasratu gi day banku day bañ nga tàllal ko boo ko defee kasratu taa maftuuxa daan na la nga def ko nag taa goo xam ne da koy bank ñu ne mbankaan songi taara ñu ne mbankaan songi taara njeego kasratul xabisee nga njoogo xaadiratal baxree nga laaraaf sakratal mawtee nga majid nadratal naimee nga mikiyaal rehlata chitae nga xoraysi xamaalatul xatabi ca lahabin bu ci nekk rek baat ba ko féete ginnaaw day banku nga door a taara waaye boo ko boo ko ubbee rek def xay macha allah macha allah jërëjëf ci mbankaan songi beneen laaj bi sëriñ Maxtaar mooy lala juróom. lala juróom la. lallati ak lallatiina yépp nga gallaay. wala la bas naa nga lanaam lala joo nga moomin lala bisaa nga baam lala. baam mooy saafaat mooy saafaat. jërëjëf am na ñu naan lala joo dogon ko nag balla joo seen giir fay nag nit. baamu ko. lala joo. Hmm. dogon ko nag balla joo. Hmm. seen giir fay nag nit mooy yéen ñaar ñi doog nga fi bokk bu fi kenn bu ngeen fi nekkul woon rek ngeen dootu leen amati. dëgg la gis nga mag ngi ni ñu jàmbaare. macha allah macha allah boole woowu am na solo lool. yàlla na leen fay. Eh, beneen laaj bi suñu waxtaan mu nga xam ne mooy laaj bi mujju jëm ki boole yi. Hmm. mooy farrat si dara. farrat si dara juróom. farrat naa yaar maa farrattum mbargaan mooy yuusuf. maa farrattu ma nga sumar. farrat te mudassir hmm. bu ci nekk rek farra si dara la. farra si dara. Hmm. kon mbokk yi loolooy émission bi nga xam ne moom lañu leen amaloon jëm ci wàllu boole muy fukkeelu numéro ak juróom-benn ñu àndoon ceeg seen mbokkum daara ngeen miin ko lool ci seen bi muy Serigne Makhtar Kébem Cheikh Salifou Mbacké ci émission yu am solo yi nga xam ne mi ngi ko fi amal bii jëm ci boole yi bele jëm ci wàllu yar ak yaru ak yare mu ànd kook suñu mbokk Serigne Mbacké Sourang di émission bu ama am solo comme niñ leen ko junjee woon képp kuy yara rek ak di jàngale wala ngay tàggat ay ndaw noo leen mën a tàggatee rek émission boobu amal na la njëriñ di sant bu baax a baax a baax compagnie Alaaji Sëriñ sekk mi nga xam ne moo leen di may émission yi ba ngeen mën ko jot di leen ñaan rek ngeen gën a abonné ci chaîne bi ngir bépp waxtaan bu ñu fi jot def def ngeen mën ko jot sëñ Maxtaar laataa ñuy yëkkati jotaay bi yan kàddu yu mujj ngay tëjee jotaay xanaa di nuyu ak gërëm ñu ko seqal tañ def ci seen itte tey santit ki nga xam ne moo ko jàppandil ba sëñ daara bi léegi moo lay fekk ci sab wata fekk la ci sab saal fekk la ci sa ci sa daara fekk la ci sa tool da nga waroon a laxas maa ngi dañ daan laxas laxas nag mooy tukki boo xam ne da ngay laxas say bagage yanu ko jëm foo xam ne xamoo ko bis boo demee ba gis sëñ daara bu la dooy nga toog fa di jàng sëñ daara bii ñuy wax YouTube nag beneen bi ñu naan ko yeneen yu tur yi mu am moom léegi dootoo laxas di ñëw moom mooy laxas di ñëw kook loolu taw tawféex mënu koo féete kaw ak jàpp na waaye sëñ daara boobu li muy man mën a laxas nag ki ko jox ay jumtuwaayam ba mën a laxas ñëw ci yow moom C3S dafa bokk ci ñi cay participer danaan sëñ daara bi kaay mu ñëw mën a ko wëral ma réew mi bul bàyyi saal bul bàyyi bu wata bul bàyyi tool bul bàyyi jàngukaay bul bàyyi fépp fu ne dugg fa soo fa duggee nag yow li la war mooy neel maa ngi nii bu kooku soxlaa na jàng bu soxlawul na ko fa xaar ba mu bëgg a jàng ak waxtu bu a doon nga jàngal ko inna fi dalika la ibra li la albab wasalaamaaleykum wa rahmatullah inna fi dalika la ibra li géej la goo xam ne amul tefes saa boo xëyee mën caa jële loo xam ne lu la mën a jëriñ sa àdduna la lu la mën a jëriñ sa alaxira mm-hmm. wa innahu la dikrun laka wa li qawmika wa sawfa tusalun in uridu illa al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu rahmaani rahim والقلم وما يسرون